lu dul lu dul yàlla ak ñen te fexe leen ba ku dul yàlla mu leen bind bu leen ko def buur bu leen di bu leen di moom yàlla rekk moom ndax lu tax mu moom moo sàkk xam nga ki moom moom ki sàkk moomu ci doon dara ku dul yàlla bu leen nangu mu moom bi sa kilifa yi mooy ki nga doy la yàlla boole la moom mu di la jëriñ adduna àllaaxira te kenn nag lañ ci am muy sëñ Tuuba bu leen kenn yi leen ba ci man ku dul sëñ Tuuba bu ngeen gisul sëñ Tuuba ci kooku loola a moom seen kenn moom ku dul mi leen di bu leen kenn yilif ku dul sëñ Tuuba dégg nga loolu li ngeen di moom yàlla mu sàkk rek ko moom mhm. ndax moo sàkk kon moom moom tëpp mhm. mhm. moom la génn kilifa muy suñ ci suñ yàlla kilifa moom la muy topp moom la moom la ñuy def référence moom la muy xalaat la ko war moom la muy bàyyi kilifa sabab yeeg yëpp amul njëriñ mm. saafara yeeg diw yéeg kitaaw yeeg ak gisaane yeeg wér bi yeeg yëpp ay caaxaan la mm. sonal sa làmmiñ mm. ñuy def bu jàqi ñu dina ko jàngal alxuraan man loolu mën ma jàqal alxuraan woo fee ci ne su ngeen jàq jàng leen alxuraan danaa andi taw waxu ko de def na su ngeen jàqlee jégglu leen jégglu jégglu la ñuy jéglu la ñuy digle ci jàqe Mm-hmm. wa yaqum istaghfiru rabbakum suma tubu ilayhi su ngeen ko defee mu ne yursili samaa aleykum wizra mm-hmm. alxuraan des koy ëpp dund la ndax bis bi yàlla sàkk da ko war a mm-hmm. leen jàngal ko suñu baa nee na kullu muridin bi yaruuta bépp bu wéeru ci man fal yu din na saxal tilaawatan li xayri zikri lu muy dàkk bis bi ci jàngal alxuraan أدم تلاوة من الكتاب ولو ثلاثة من الأحزاب سيدي أحمد نين سيين لما يأتي سخل لين بجانب القرآن بسبنا دون في نيكي سيد القرآن دي سيد بمبانا ترغل على من جبال إن كوي دخل القرآن دي لين بك جانب القرآن نين من سوين أمي الداخل نجين جدي دون القرآن istakbiru mm-hmm. waaye taqrabu maa tayassara min al-Qur'aan tegu ca ne bu boobaa dana toog. waaye xam istakbiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midrara buñ jaaxlee dañuy jéggul tuuti. buñ buñ buñ jaaxlee jëfandiku lenn nag. ñuy jàng alxuraan ngir jëm kullu muridin bi yeloosi yooyu woowu na ngeen ko xam mm-hmm. suñu borom nee na sëñ Tuubaa nee na kullu muridin bi yeloosi mm-hmm. fal yu din mm-hmm. tilaawatan li xayri sikri gisu leen ko ci alxuraan ah, ci xasida waaw lekk na yéeru saxalal di jàng alxuraan saxal mooy lan bisu yàlla mu dellu ko leeral ñu adim tilaawatan li xayri sikri dee leen saxal jàng alxuraan walaw salaasatan min al ahzab bi looloo di kenn ñett yi ñu ko ñett yi si gaa yi ndek leen jàngaa waxtaan di jàng xasi te nekk ci seen i biir yi waaw boobu ci kenn lëggéeyut bu ngeen di jàng bu ngeen sonnee bàyyi leen bu ngeen baree ay xalaat yu bari bàyyi leen ngi mel nag lekk da ngeen nit ba nga xam ne boo koy booy lekk mu neex ci yow jàngal fa am da ngeen nit ba ngeen di bu ngeen ko mooy dee leen jàngal alxuraan di jàng ko te wàññi bi ak diw sunu borom bi boo leen murid bu ñu gisee murid bu takk dañ koy reetal bu takkee ba bari takki sëñ Tuubaa dañ koy reetal ko li di réyee ñuy jooy ñett fekk na loolu bu gisee beneen lekk kat ba ñu mënul. waaye mu bu lekk ba ñu fokk bay am. waaw malayka dañuy jooy. jooy jooy ñu i waaw bu bari gàllaaj dañ koy reetaan. Mm. murid bu bari lu muy diw dañuy def ci seen loolu nag taxe ba ñu la boole ñu si njëg di ko kii di dari bakkan kii di reetaan kii di jooy. xam nga ne nit bëgg bi ngeen mën bëgg ni moo tax nekk ci yàlla man li ma xam dana neex mag yàlla fi yàgg tëgal góorgóorlu leen bu baax ci jàpp si bu leen jareen ñu nga tolloo ba nga xam dëgg bi ñu ñu ko waaye daal bi ngeen leen ci la jëkk la jëkk weer yi gisatu leen du ngeen leen ci baal yi ñu si tudd ngir ñu ànd ak ñoom. Mm. dootu leen déggati ñu wax ko. kenn ku ci ñemee taxaw place. Mm. wala fa ñuy wéete. Mm. naan xel bu sëñ Tuubaa la. ndax lañ tax lañ tax lañ tax lañ taxawal. diine amu ci jëkk. boo ko waxee ñoom ñoo naan dëkk. doomi Baara Dooli ji nee na Mbàkke am ko ko ne bu ko fi waxee te kooku ñëw na fii de ne ne Mouride la. fàttali leen. fekkoon ne fii Mbàkke xewul bokkuñu fii de gëmuñu li ñuy wax du dëgg su ngeen leen ci bu bu ba janati ba defe na war nañoo ñëw gëm loolu lañu ràbbaat ba ña ngay ràbb na waaye danañ fexe ba lu doon dox yoo xam ne danaa noonu baax kenn wëru leen ñoom ko xam la ñuy def ko lu jar noonu noonu di ca xalaat ko nit ñëpp diine lañ bañ sëñ Tuubaa lañ bañ defe nañ ne noo yàq réew ndax dañoo defe ne ñaari ngóor a fi am lii lii leen naqar yii yii moo leen lu waaye am jox sëñ Tuubaa lu waaye am jox sëñ Tuubaa loolu leen naqar yéene wuñ ni ko tubaab yi sax leen gën ndax tubaab xam na adduna demoon nañ ba xam ne murid yi am nañ baat borom mbooloo la ci tubaab borom mbooloo ak borom alal tubaab da koy xam waaye ñii ne ku am alal ñu iñaane ko bala ñoo am jàmm sos na nangu alal ku am mbooloo ñu fexe ba yàq sa der ba kenn du la gënal loolu lañ dëgg waaye nit ku nekk man ko xam xamal nañ ma ko nit dana këppwaat ci seen ci seen jërëjëf man jërëjëf yàlla yi fi ak waaye waaye da ngeen xam ne li ñëwoon ci dàq suñu lan wàññi wax wax ñu dégg yi jox leen koy waxee yëpp